voilà Samba Dieng sama sama xarit Mom, moom euh, ci mairie bi la conseil municipal en même temps mom, moo yore commission jeunesse sport et loisirs. kon kooku bu ayee man damay ñëw jàppale ko parce que Samba Dieng nous avons d'excellentes relations ci mairie bi euh, à chaque fois man lu sollicite ko sollicité ci mairie bi rek da koy def Mom, du xool ndax mom, ou pas Le lu ma ko wax rek automatiquement da koy def et de bonne foi la koy en plus c'est quelqu'un qui est très loyal au maire en plus tamit benen qualité bu mu am moy da di nit koo xamante ne dafa poli dafa yaru manam bo gisee rek da ngay da ngay respecté automatiquement ndax discipline am quoi moy en plus ko xamantene tamit dafa bëgg dëkk muy Kër séga parce que gis nañ investissement bu mu ciy def muy côté extension courant bi surtout ak ak côté jeunesse bi tamit ñeneen ñi tamit ni ñuy défé ni ñuy jappalé seen yeneen gox yi mom tamit non lay jappalé fi ni au niveau de Kër séga té wa Kër séga ñokoy waxa seen bopp. di nuyu aussi monsieur le maire mi nga xamanteni monsieur Gabriel Bob mi nga xam te ni moo jiite délégation bi ak ñi mu àndal ñëpp di mu nekk nit ku ñàkk ki ñaan aussi tey mu waroon a dem ci yeteem yitteem mu ñëw moom laa bëggoon a jox sax parole bi mu def ko mais nee na ma Dieng waxal lépp ndaxte lépp rafet na monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la sant di feddali sama euh, xarit ak sama cofeel si yow